Boas be? avant que may démarrer vidéo bi yéen ñi nga xamante ni da ngeen di kii fa hip hop di dund hip hop rawatina ñi nga xamante ni fekk nañ lu bëri dañuy fekk ñu bëri kenn du ci dem maanaam te xamoo kan mooy Obi Médecin Obi Médecin yàq na yàgg na si game bi def lu bëri billaay yàgg sonal nit ñi seen événement moom la gars yi defal Kopar Express mu ngi nii ñu soxla cinq millions di ñaan de grâce ñi nga xamante ne ñi ngi seetaan vidéo bi avant ngeen di dem lu ngeen mën a participer ba mat 5 millions xeebuñu dara ngeen dem participer ko muy lien bi ngeen di seet nii pour ngeen dem cliquer si ci Kopar Express pour mën a dimbali obi médecin yi dinaa ko def ci suufu description yi lien yi pour maanaam ngeen mën a dem cliquer foofu pour mën a jàppale ubbi médecin yi parce que mérito na ko waxuma la 5 millions rek mais ay milliards mérito na ko ndax liggéeyal na hip hop. yeah what's up gars yi maa leen di pégee yi nga xamante ne yéen ñu bàyyi saa su ne ah chaîne DOS TV maa leen di bëgg bu baax a baax di leen wax mbaa yéen ngi dal jàmm di bëggewaat ñi nga xam ne ñoo si abonné depuis lors maa leen di siyaar ak ñi nga xam ne ñu ngi si doog a abonné di leen wax soo leen abonné ba pare bu leen fàtte ba seen cloche notification ba vidéo bu mën dugal rek ngeen mën ko am gars yi tey dañuy ñëw si Akhlou Brick Paradise muy seen son bi ñu mujjee génn yàqu ñu ànd si ak njoletaal aussi tamit dinañ wax si Dip Doundou Guiss

mu nekk benn affaire boo xamante toujours rek ça Sénégal Rabou bi Rabou bi mais alubrik franchement bi son bi génnee man perso laay wax quoi man son nice et puis musicalement dafa nice musicalement dafa nice te bit bi soo xoolee génnul ci quatre non non non génnul ci quatre classique yi wax boo fa marimba donc liñ ci ajouté certes ni voilà parce que bu dul ak mi ngi si pour man en plus son bi première attaque tak couple arabe waaw beneen affaire surtout côté écriture euh, nice nice ala euh, mayul bit bu dara mayul bit bi dara dara ak euh, manam transition yi njole ñew teg refrain bi lool tamit benen affaire la nga ñëwaat day ñew momit ni ara doo ko daax bon vraiment ngay diglu affaire bi bonku mu lay yóbbu si yeneen dimension donc dina la fecciloo et puis tamit soo si bëggee déglu en tant que hip hop nag laa wax quoi je ne dis pas que ñi nga xamante ni moom xam nga nit dafa am ñi nga xamante ni bu ñu amee esprit critique dara neexu leen kenn mënu si dara donte sax boo demee ñoom. ay ma riirandoo képp moo leen si dugalan ah, de fait que gars yi lii neexul donc ñoom dañuy ñëw ni ñuy neexul te boo leen waxee donc pourquoi duñ la wax dañ naan la lii mbalax la genre donc il faut ñu arrêter loolu quoi nangu naa nag nit ki lu la am nga sañ-sañ ñi neexuma mais ñoom euh, axlu birik wala soit ay wandirikal ñoom li ñuy def dañ ci gis seen bopp moo tax min def mënu leen ko bàyyi min def mënu leen ko bàyyi loo c'est di hip hop ce ñoom xam nañ te ñun it xam nañ li nga xamante ni mooy norme hip hop su dee si côté beat carton drill wala leneen ak leneen ak leneen problème bi am Sénégal nii moo am États-Unis même au school yi foofu noonu sax dañuy xas booy yi naan leen yéen li ngeen di def lii patati patata di leen kaañoo teewul booy ñi si meeg maa xam nga grand yi booy yéen si mën a mën a mën a jàppale ñu leen di jàppale bëri na booy yoo xam ne ñu ngi def si sa tey grand yi nga xamante ne tey jii ni ñoo nekkoon euh, si game bi ay temps ñoo leen ñoo leen génne xëy na booy dañoo pël tamit nekk si yeneen affaire teewul nañu nañu bàyyi gars yi ku nekk def sa soir mais man soo woon Akhlou Brick man franchement man rien à dire quoi man perso nag laa wax quoi waxuma nag li ma wax moo am mais man ci sama sama sama sama sama sama sentiment bi ma déglu leçon bi côté musical xam nga euh, côté lyrique gars yi moom euh, macha allah euh, nice na ñu ñëw ci dib Doundou gis moom mi nga xamante ni tamit moo Pape Sidi Fall doon nañ def benn live mu expliqué si kilibu kalifat bi def na si douze millions douze millions yi nag bi mu ko waxee wax na li tax mu nekk douze millions et c'est normal de certes da ngay gis ñenn ñi naan waaye kii dañoo yeb nangamal mais dib tontu na bopp tontu na leeral na ndax moom bu doon moom kese la peut-être douze millions yi du ko am mais ay partenaires la am benn ay Pepsi ak yeneen ak yeneen ñu ñëw da ngay fay fecckat da ngay fay réalisateur da ngay fay monteur décor ñi décor da nga leen di fay ak transport beeg yeneen ak yeneen ak yeneen ah, franchement c'est normal Vous faites condamner 12 millions rek la il def a explication mais franchement indi explication c'est normal da ngay gis artiste qui euh, si vidéo def millions yu vidéos parce que am ay partenaires am na ñoo ñoo leen vidéo Pepsi euh, maanaam Ben boisson boo ni Sénégal rek il est international artistes monde bi ñi Pepsi je pense que li mu wax lu yanu il faut que aussi des fois ñuy dem ak suñu xel bu ñu voilà genre mais et je respecte beaucoup franchement Euh, moom sax euh, soo xoolee laaj nañ ko si lu bëri fu si affaire yi fu mu toll comme rab bi gars yi di def lii genre affaire yooyu noonu mais euh, lu mu si expliqué nit ku nekk am nga choix def li li nga fiil xam nga donc bu ñu man li may li may bañ man mooy ki nga xamante ne tey day ñëw pour bëgg a disrespect rab bi cest à que defoo rab après nga am am am am noo koy am noo koy noo koy noo koy noo koy traité naan rab lii wala laa quoi donc defoo ko respect ndax yow bi ngay dugal da nga ne rapport nga donc. avec le temps rab bi am na lu mu def si yow donc xaala mais nag nit ku nekk am nga sa choix pour def li nga bëgg a def am sa ñu laaj la nga teg xam-xam xam nga nag euh, ñun dañoo dañoo dañoo réer si benn mbir hip hop ki nga xamante moom moo ko la comme ñun Karesh One mi nga xamante ni bind na gospel of hip hop nit la comme ñun léegi pourquoi pas tey jii ni benn baax bàyyi doo su waxee dara si hip hop ñu ne non hip hop lii hip hop laa hip hop du diine xam-xam la rek am na ñu bëri ñoo xam ne bind nañ ci hip wax si li nga xamante ni hip hop loolu la léegi nag ñun Sénégal li suñu problème mooy knowledge bi dafee des nit ku nekk mun nga def lu la neex mais teewul da nga war a am knowledge ba boo toogee di wax ak nit ñi di débat nga mën leen euh, exprimer lu ñu mën a jëriñoo xam ne la hip hop di jëriñ te boo hip hop dafa branche xam nga si Karesh euh, livre am boo xam nga la tuddee rappeur euh, rappeur mooy ki nga xamante ni tey jii nii tendance lay wër rappeur nga MC mooy MCC xom eh, eh, ak E nee na kooku mooy ki nga xamante ni dafa respecté norme hip hop yaa ngi comprendre mu ñëw ba si ñi nga xam ne dañuy dund hip hop muy hip hopeur hip yooyu noonu yëpp mu tënk ko te livre boobu noonu lañ reconnaître ONI 2003 ba gars yi reconnaître hip hop xam nga léegi am na ñi nga xamante ni tamit donc bu ne ay rappeurs na ñoom dañuy xool di tendance dañuy def bu fekkoon ne lu muy diaboliser la c'est-à-dire du ko si def mais xam na ne nee na rappeur mooy ki nga xamante ne day topp tendance bi MC mooy ki nga xamante ne day topp lii quoi j'aimerais bien que nit ku respecter sa morom li nga euh, fil pour def ko quoi Sénégal nga ñun problème des années ba mu ngi si dara dañu si boobu xam nga ngi débat rek rab bi rab bi bi te comme li ma toujours toujours critiquer. te booy nga xam ne ñu ngi def ñoom ne rap mbalax la ñi ngi si gis seen bopp et eh, damay wax leen nombre de vie day compté wu ndax nombre de vie yi nit ñi ñi ngi lay wane ñi ngi lay bàyyi xel mënoo def sa benn son xam nga euh, financé si def si lu nekk nga dugg di am ay cent vie nangam war nga xoolaa sa bopp quand même après ñu naan la yee réew reconnaissance réel réel nangam ba kañ am njaboot yow nga ne da ngaa bëgg a tekki si rab bi wala genre mooy loolu ñi pare jël seen am jël lépp def ko si hip hop mi ngi fi mais dafa fekk ni ñoom dafa am si lu ñu taxaw lu ñu ndëgërloo bëri na fi man damay jox exemple man États-Unis laa joxe exemple foofu noonu ñoo xamante ni ay ay underground hip hop la ñuy def ay Veni xam nga ay sunu guns ñi nga xam ne seen slogan we keep hip hop alive ñoom loolu la ñu dund loolu la ñu gëm mais fii da ngay gis koo xamante ne day commencé dugg si foofu am hip hop laay def hip hop laay def dem quelque temps gis ni kat bu defee lii mën na si réussir parce que laay bi dafa métti mu def ko fekk ni man ak ñoo yem donc ñun dañuy dund lu tar léegi nag loolu moo bëri Sénégal. doo yàgg galère si rab bi dugg si joo fay nga ñëw dal si benn affaire boo xamante ni tey jii nii lii servir na la ay millions donc da ngay obligé tam bëri na fi gën a yoo xamante ni fii bi leen rab bi mayee visa da nga dem toog waxatuñ si rab bi voilà donc ñooñu sax comprendre na parce que lu ñu fay lu ñu daj si rab bi tey rab boobu moo leen yóbbu États-Unis c'est normal foofu noonu kon tamit ñu am lu ñu def xam nga donc nañu bàyyi ku nekk daal xam nga def li nga xamante ni moom nga moom nga soo mais en tout cas Sound man moom man personnel nice na